al Musal mooy lu càllalaw maanaam ni ab ceen demel nga xam ne weñ yi ci bir ceen bi dañuy jàppaloo toftaloo loolu lañuy al Musal salu waaye nag bu dee ci istilaaxan lan mooy al Musal moom lay wax fii ci buntu bi mune Musal Salun. mal wifqu fiihi wujida fii sifati ruwaati aw wasfil ada mu ne musalsal musalsal maa mooy xadis boo xam ne wala matn boo xam ne al wifqu dëppoo ga fii ci moom wujida fekkeef na ko fii sifati ruwaati melaw ñi nga xam ne ñoo nettali xadis bi aw wasfil ada wala melaw joxe ga kon musalsal daal ñaari xaaj la mën nañ ko wax ci ñum mu ko xamlee ci bind bi mooy eh, ñi nga xam ne ñoo nettali xadis bi dañoo dëppoo ci wenn melo wenn melo bu ko waxee mooy dañoo dëppoo ci dëkk bu ñu dëkk comme lu mel ne ñoom ñëpp ñoom ñu riwaaye xadis bi ñëpp ay maanaam madani yiin lañ madina lañ dëkk wala ñoom ñëpp màkk lañ dëkk ba ñoom ñëpp misra lañ dëkk yu mel noonu wala ñoom ñu nettali xadis bi dañoo dëppoo ci melaw wu ñuy liggéey lu mel ne mel ñoom ñëpp ay xodaat lañ ay attekat lañ wala ñoom ñëpp ay naxaar lañ ñu dégg naxaw wala ñoom ñëpp ay fuqahaaw lañ ñu dégg fiq yu mel noonu wala ñu dëppoo sax ci turu ñu tudd lu mel ne ñoom ñëpp Muhammad lañu tudd wala ñoom ñëpp Alhamdulilah lañu tudd yu mel noonu daal. kon loolu mooy dañoo dëppoo ci maanaam melaw seen melow dafa dëppoo ñoom ñu nettali xadis yi ñëpp ñoom ñu ko riwaaya ba mooy benn bi aw wasil ada wala boog ñu dëppoo ci melaw jooxe ga wala boog xadis bi niñ koy nettalee niñ koy jooxee ñoom ñëpp ñu dëppoo ci loolu nag mën naa nekk min xawlin aw fi'lin min xawlin mooy ñoom ñëpp kenn ku ci nekk xadis biñ la koy nettali nañ ko waxee noonu nga ko waxaate ci misaal xadiisu Muaas ibnu Jabal bi ko yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ne ko yaa Muaas inni uhibbuk faqul dubura kulli salaa allahumma a'inni alaa dikrika wa shukrika wa husni ibaadatik bu yow Muaas man de ku la bëgg laa na ngay wax ginnaaw bépp jullik farata na ngay wax allahumma a'inni alaa dikrika wa shukrika wa husni ibaadatika xadis boobu yaa Muaas ana uhibbuka faqul googu ana uhibbuka faqul googu nekk ci biir dafa dafa mel ne dafa def tasalsul ndax mboolem ñi riwaaya xadis bi jële ko ci Muaas ci ginnaaw bi ñi ko nettaliwaat ñépp dañ cey jëfandikoo baatub ana uhibbuka faqul googu mbak ana uhibbuka faqul googu dañ ko ci indiwaale xam ne kon moom mel na ne kooku dañoo dëppoo ci melaw maanaam niñ joxee xadis bi ci wax wala boog lu mel na ñoom ñëpp ñu leen ko nettali baatu naa lañ jëfandikoo wala naa ñu indi kem baat boobu ba tey loolu dëppoo ci wax ci lay dugg walla lu mel ne xadiisu suuratu safi muy xadis bi nga xam ne Abdullah ibnu Salaam moo ko nettali mu ne dañoo toogoon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk ab kuréel ci saxaaba yi ñu fàttalante ba yàgg ñu wax ne bu ñu xamoon jenn jëf ju baax joo xam day jegeloo suñu borom subhanahu wa taala ñu mën koo def ñu def ko nee na eh, fi saasa aayab wala ñaari aaya sabaxa lillahi ma fi samawati ma fi ladi wala asnakim ya ayyuha alladina amanu lima taqulu ma la tafalun aaya yooyu wàcc alhamdulilah ibnu salaam mi nga xam ne moo riwaaya xadis bi dafa wax ne fa qara'aha alayna sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maanaam fi saasa yéen dem saasa daan ñu koy jàngal nga xam ne faqaraha alaynaa googu ñi waat xadis bi ci ginnaawam yëpp bu ñuy nettali xadis bi dañuy jëfandikoo baatu faqaraha alaynaa googu kon boobu tamit ba tey kon gis nga ne dañoo dëppoo ci melaw ni ñu joxee xadis bi ci wax walla boog ñu dëppoo ci maanaam ni ñu joxee xadis bi ci jëf kon lu mel ne xadis abi hurayra mu ne sabbaka bi yadi abul xaasim wa qaal xalaqallaahu al arda yawma sabti mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ràbbalee baaraamam ci samay baaraami loxo daal di wax ne yàlla mi ngi bind suuf si ci bisub gaaw tasbikul asaabihan googu nga xam ne moom la yonent bi sallallahu def ràbbale gi mu ràbbalee baaraamam ci baaraami Abi ra mboolem ñi rewaayewaat xadis bi ginnaaw bi yépp buñ koy nettali ki ñu koy nettali dañuy ràbbale seeni baaraam ci ay baaraamam man loolu kit tasbik googu moom itam dafa def tasalsul loolu kon ci jëf la ولا من حديث أنس بن مالك من لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره وقال وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره حديث bi yonent bi saa da cee wax ne ab jaam du maanaam jot ci cafka cafka ngëm yàlla du ko mos lu dul ne daa àgg ci gëm dogal bi yàlla moo xam aw yiw la wala ab safaan la moo xam lu neex la wala lu naqari lépp lu mu ci mën mu gëm ko ba àggee foofu daal lay doog am maanaam euh, cafka gi nekk ci ngëm yàlla moom Anas ibn dafa wax ne yéen saasam bi nettali xadis bi egsi fii dafa ngëm nag ci ci sikkimam daal di wax ne amantu bil qadari xayrihi wa sarrihi xuluhi wa murrihi ngëb googu ngëb ab sikkimam nag moom itam dafa def tasalsul nga xam ne ñi nettali waat xadis bi ñëpp ñu ko riwaaye waat ginnaaw bi bu ñuy riwaaya xadis bi bu ñuy nettali xadis bi dañuy ñëpp ci seen sikkim daal di wax amantu bil xadar googu kon loolu yi dafa def tasalsul mu mel ne hmm. moo tax euh, musalsal ñu wax ne njariñam bokk na ci mooy roy yonent bi sallallahu alayhi ci jëf wala ci wax ci jëf jum jëfe woon ba nettali xadis li may wax xadis bi wala wax ju mu waxoon hmm, kon roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci wax wala ci jëf beneen ba mooy beneen njëriñam ci mooy ki nga xam ne moo riwaaye xadis bi dafa mel ne def na ci yitte ñaate naa ko rawee bi ma maanaam rawee ki nettali xadis bi def na ci yitte lool ci lim solo ndax def ci yitte weesuwul mu dem ba bàyyi xel wax guñ ko ci waxale won wala jëf duñ ci jëfale won kon lool mo nekk ci musalsal kon lool moy musalsal tax mo ne musalsal musalsal ma moy lo xam ne alooy fiqu dëppoo ga fii ci mo wujira fekkeef na ko fi sifati ruwati ci melaw ñi nga xam ne ñoo riwaaye xadis bi wasfil ada wala melaw wañ ko joxe moy melaw wañ ka netale waqal la wasfun li tasalsuli salim lal mat mu min donfin wa naqsuhu olim mu ne waqal la néew na wasfun aw melo li tasasul ñeel tasasul ga salim mucc na min donfin ci donf laal matn waaye nag waxuma matn bi wa naqsuhu ak manquem nag xolim xameef na ko mu ne néew na noonu lool nag xadisul musalsal boo xam ne bil wasfi la ci melo la nga gis melo woowu mucc ci donf ne loolu néew na xadis boo xam ne daal dafa def tasasul ci aw melo te melo woo moom nekk melo woo xam ne dafa maanaam continuer mucc te daggul benn yoon nee na loolu moom nga xam dafa continuer muccul maanaam mucc ca donf nee na loolu moom néew na nga gis ko maanaam tasalsul yooyu gis yu ci bëree bëri daal day dagg tasalsul ga wasf ba day dagg ci njëlbeenu xadis bi njëlbeenu maanaam isnaad ba wala digg ba wala mujj ga loolu lañ ko misaal ci xadisu bu mel ne xadisu musalsal bil awwaliya muy xadisu tirmisi ak abi daawuda yépp nettali nañ ko arrahimoona yarhamuhum arrahman tabaraka wa taala yarhamu man fi ardi ko man fi sama xadis boobu e, amr ibnu mi nga xam ne moo ko jële ci amr ibnu al-aas moom bi mu koy nettali sufyaan ibnu uyayna daf ko wax ne fa huwa awalu xadisin samituhu nga xam ne wax nañ ne ñu bari ci ñi koy nettaliwaat buñ demee ci E, ab sëriñ di jàng ci moom xadis di riwaaye ci moom xadis sax dañ koy obligé ci mu njëkk leen nattali xadis boobu su ko defee ñu mën a wax awwala fa huwa awwala xadisin sami'tuhu minhu googu ñu man koo wéyal kon aw fa huwa awwala xadisin sami'tuhu minhu googu moom dafa def tasalsul ci mboolem ñi nga xam ne ñoo tàmbalee ci Amru bnu Dinaar jëm kaw nga xam ne daal fi daggee mooy ci Amru bnu Al-As ba bi sallallahu alayhi wa moom dafa dagg waaye li jiitu loolu lépp moom dañ ñëw jëfandikoo kenn ku ci nekk rek bi ngay riwaaye xadis bi ci nga koy nettalee maanaam danga koy wax foofu awal xadisin sami'tuhu minhu maanaam di ko xamal ne mooy xadis bi ma njëkk a jële ci ki ma ko nettali kon wasfu boobu day mel ne maanaam defal tasalsul waaye dafa dagg kon dafa dagge ci Amr ibn Dinaar moo tax mu ne waxal la néew na wasfun melo salim boobu mucc na li tasa li tasasul ñeel tasasul sali moom mucc na min donf ñu donf mu ne laal mat na waxuma nag matnu bi matnu bi nag moom bokku ci kon moom wasfu bi wasfu tasalsul bi mën naa bañ a mucc waaye matnu bi moom loolu néewu ci mooy lu ci bëree bëri moom tasalsul maanaam xadisul musalsal boo gis moom matnu ba moom matnu bu wér lay doon boo xam ne moom am benn euh, donf loolu maanaam lu mel ne xadisu ak tasbiik tasbiikul asaabi googu moo waxoon ci abi hurayra boobu moom xadis bi xadis bu wér wéer wér la donte maanaam wasfu tasalsul gi mën naa dagg voilà wax nañ ne nag maanaam euh, xadisul musalsalaat yi al ahadisul musalsalaat yi bi ci gën a wér mooy xadisu Muaas ibnu Jabal ak sur safi bi ma la waxoon moo tax mu ne laal mat nu waxu mat na bi wanaq suuxu ak manqueem nag moo leen xamante na mu ne maanaam manque tasalsul gi nag maanaam ci mu dagg ci njëlbéen gi la ci mujj gi maanaam xam na ko mooy loolu lu mën a nekk la kon kon loolu moom mooy li mu wax ci bayit woowu hmm. kon mën nañoo yemandi fii incha allah ba beneen yoon ndax dañoo xaw a xat loolu fi mu ne ak saa wasallaahu wasallam ala sayyidina walana muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa xayra xadimi ahmad ibn muhammad ibn habibillah wa mati wa